jërë ngeen jëf mbokk yi gis ngeen ko ñi ngi jàmbaar académie West waaye ñi ngi taxaw kenn koo xam ni yaakaar naa ne champion la nekk entraîneur jàmbaar académie West di Balla Diouf dañuy bàyyi nag mu nuyoog mbokk yi waxtaan nag moom ci làmb ji nga xam ne ñoom lañ jëm si la le 19 Balla ñoo ngi lay nuyu di la ziar. waa maa ngi leen di fay di leen jox seen wàcc waay donc euh, di nuyu amateur yëpp ak monde làmb vraiment di nuy internetu Sénégal 7 yëpp. Fekke TV ñëpp vraiment. ñëw nga suñu entraînement seet suñu fekk nga ñuy liggéey donc ñu taaxirlu rek say question pour mën cee tontu. mais ba tey mbër mbër liggéeyu mbër ci entraînement metti na wala méttiwul. ah loolu kañ laaj ko sa papa rek yow sa papa mbër la woon champion la moo ñu formé Serigne Ndiaye kañ ko ko xam ci làmb xam na ni yéen da ngeen judd ci làmb xam ngeen nii mbër moom kenn fay ko loo ko fay fayoo ko parce que mbër. ah la muy def ci entraînement la muy dépenser ci énergie la muy dépenser ci coono at alalam mbër loo ko fay jar ko tey boo demee Europe nga gis sportif yi ni ñu leen di fayee ni ñu leen di fay seen àq mais fii ñu mbër àqam fii mbër lu tuuti luñ ko fay ñu ngi koy xool te mbër coono kase la mbër sacrifice kase la mbër dina bëri ba pare du am dara ñu naan lu tax fa mu doon bëri fu mu jaar parce que la muy boota bari la muy euh, gàllaaj seerul sarax dafa seer sarax day rey mbër day suul ndaanaan te yooyu yëpp dafa ëmb mbër mbokk famille njaboot xarit àndandoo lépp dafa ëmb mbër kon mbër affaire mbër dara yomb ci dara dara dara dara yomb ci lépp metti mbër dañuy bëre par passion rek mais li ñu ci war a am sax wax dëgg yàlla amuñu ko ci. Balla ngeen jub si ci bis bu mag bis bu bari coow di la 19 en tant que jàmbaar académie West yaakaar naa ne bi mooy seen premier grand combat boo xam te ni ci la mbër di sëgg bëri ci lañ yaakaar. waaw euh, combat la bu am solo mu nekk ñaari xale yoo xam ne vraiment làmb da leen euh, bàyyi xel. Eh, mu nekk combat boo xam ne tey eh, Sénégal ñaari mbër bu ñu tolloo fii xam ne eh, ñaari mbër yi bu ñu dajee foog kenn génn combat boobu combat tension lay doon combat pression lay doon mais ñun at notre niveau vraiment liggéey nañu liggéey bu am solo bu mucc ayib parce que xam mbër bi ñu yor mu nekk professionnel ba pare bëgg liggéey te di caaxaanawul làmb ba pare fonk combat bi lool ba pousse ñu si ñun vraiment ñu liggéey ci liggéey bu mucc ayib vraiment liggéey bu am solo di ñaan yàlla nag yóbbu ñu ci jàmm yóbbu ci adversaire am ci jàmm vraiment làmb ji bañ a am benn gàllankoor bañ a tolof tolof mbëri ñëw bàkku bëggal seeni i bëggal amateurs yi vraiment bëri lu neex nag Franc duma ko daan ko ñu ànd lëngu ko ñibbisi loolu lañuy ñaan. mais est-ce que loolu dina yomb. àdduna dara yombul sama waa ji xëy yor sa micro rek di wër tefes gi nii di xool mbëri rek yombul sa waay àdduna bi ku fi wut lu yomb bu yeboo nga dem tëddi Franc fi mu toll ci làmb. bu demee ba yu ba xool lu jafe ah lu jafe ci moom ci adversaire non kon mun na bañ a xalaata rêve nekk roi des arènes wala leneen parce que Franc mbër la boo xam ne tey mi ngi def ci xelam fii fii mbëri moroom mi àgg mu àgg fa kon tey combat bi mënul nekk obstacle ci moom parce que jóge na ci combat bu ko gën a métti combat bi nag dafa nekk combat piège combat piège la boo xam ne adversaire bi déjà dayo bi toll na ko tur bi toll na ko mais bëre bi tolluwu ko du dëgg tey euh, combat piège la boo xam ne tey erreur waru ci am te paramètres yooyu yëpp vraiment jàngat nañ ko préparer nañ ci li ci des rek mooy waakirlu suñu borom ci bës ba mu may ñu ndam ci kaw sook daa mel ni da nga bi tollut noonu kon daa mel ni Sokh bëre bi bënnut. mbër waada la mbër kaamin la mais dafa am mbër at mbërëntaan kii mbër la kii mbërëntaan la. donc euh, Franc mbërëntaan la. Franc ku ko xool xam ni mbërëntaan la parce que day compétir mbër buy compétir chaque jour boo xam ne basé woo ci bëre door kase mbërëntaan nga donc comme mi ngi compétir di bëri ci arène bi mbërëntaan la kenn nag mbër la bu sotti donc rek moo tax toujours un plus bi muy def mooy compétition bi ko Franc di ëpp loolu loolu mooy un plus bi loolu mooy tax tey ah, ñu am yaakaar ci li ñu liggéey yëpp que ni tey soq mii kat du ñu téye. kon da nga jàpp ne Franc moo dàq bëri soq. fuuf loolu laa jàpp loolu laa gëm. loolu laa jàpp parce que tamit. ragal feeñ nga nga ne nga day xañ wërsëg man Balla nga ne lan. man damaa gëm ni sama poulain Franc moo dàq bëre soq fuuf te bëgg naa mu wan ko ko ci jour ba. soq ay combat yëpp top 5 la leen yóbbu. ndaanaan la soq ndaanaan la déggoo ma de soq ndaanaan la loolu moom on a disconvient pas mais ku ñu yor super ndaanaan la. gën a lan Balla. Ah, Sokk ndaanaan la loolu weddiwuñu ko mais Franc super ndaanaan la waaw ndaje dafa am super ndaje am ndaanaan am super ndaanaan am ndaanaan at super ndaanaan nag ñooy daje. mais mais est-ce que tey Sokk du ñëw favoriser xeex bi. waaw Sokk mën na ñëwee nu ne ñu xaaree ko nu ne bu ñëweewul nu ne ñu fekkee ko nu ne defee ko nu ne parce que tey ñaari xale lañ tey amul lu ñuy làmbaatu wala jeex fii wala am lu ñuy moytu. combat gladiateur bu ñu ñëwee ñamante non nañu ñamante nañu bëree nañu bëggal amateurs yi nañu remplir seen contrat tey loolu mooy biddu du jeu bi ñu am combat boo xam ne tey ñaari mbër yi buñ fa jógee ñaari mbër yi amateurs yëpp dañuy kontaan si ñoom ñaari adversaires yi buñ jógee ah lënkonte loxo ñoom ñaar ñëpp ñu fier mooy ku ci nekk ndam nag dina am défaite dina am mais ñun dañuy ñaan am victoire ci combat bi ci kaw Sokh ndax gëm nañ ni wàccaay wàcc nañ wàcc bu mucc ayib gëm nañ ni mbër mi ñuy mi ñuy àndal di ko gunge moo gën a fonk combat bi que ñun ñu ànd ak moom moo gën a fonk combat bi adversaire am loolu rek jox nañu confiance loolu rek dalal na suñu xel. ma gis ne ay ñoom Ama Baldé ñoom booy ñaar ñoom Eumeu Sène ñëpp gunge Sokh en tant que yéen ñi nga xam ne yéen a yor mbër mi lan la leen def. làmb ji nawetaan la léegi affaire affaire de quartier la c'est normal tey. Eumeu seen magu Pikine la ñoom Ama Baldé ñoom ñëpp dañ ko war a gunge loolu mooy yoon parce que tey euh, làmb affaire de quartier la affaire de famille la bu njëkk dañ daa wax ay Fass Pikine ah wala ñu daa wax séeréer si Fass léegi cent pour cent la ñuy wax ñii ne deux cent ñii ne trois cent loolu la parce que ay xale la ñoo xam ne tey dem nañ ba xam ne adversité seen biir amul sens day yàq seen quartier ñu ànd loolu dafa rafet tey loolu Sénégal ñëpp ci war a d'accord ay xale yoo xam ne dañoo bokk gox mënuñoo bëri seen biir ku ci am combat ñëpp ñëw jàppale ko loolu motivation la man dama koy rafetlu ci ku ko mën a def nag dama koy rafetlu ndax ànd rek moo wóor ànd boole xol yi rek moo wóor ku àndul nag yaa wéet waaw te mbooloo mooy doole loolu la ñu wax ku mbooloo ku ku booloo rek am doole. kon na ñëpp booloo bu ko defee ñaari doole yi bokk nii bu Pikine ñëwee ak doole Parcelles ñëwee ak doole lamb ji neex amateur yi bég ñi nga xam ñi jënd seen ticket di seetaan si bu ñu ñëwee mën a kontaan sax gën lamb amateur yi gën nañ kontaan te dañoo bëgg si combat bi ñoom ñu kontaan donc ñaari mbër yi rek ñoo mën a tax ñu kontaan te ñaari mbër yi ni ñu leen gisee seen détermination pare nañu pour bëggal sénégalais yi pare nañ pour wane ni kat ñoom ay jàmbaar lañu ah boobaa nag maa ngi ñaan sama poulain daan daan soq. mais ñu gis ne wax ji bari lool xas-xas loo bi bari te ci Sénégal yenn amateurs yi siifut làmb ñëpp nee nañu Franc ni muy waxee d' accord ñu pour mu ñëwee noonu yow d' accord nga ni Franc di waxee mu ñëwee noonu ci biir làmb ji. man toujours li ma lay wax mooy wax ju bëri ji mooy jaay làmb ji wax ju bëri ji tey moo tax ñëpp di xaar làmb ji parce que mbër day xas mbër dangay wax li nga gëm wax li nga fonk promoteur bi tëgg combat bi dafa soxla promotion tey mbër yi ñooy def seen promotion tey Balla Gaye luñ ko mën a waxal tey ci làmb làmbam day jar. parce que il fait de la communication il fait de la com tey mbër yi tey dañu war di communiquer di wax bu ko defee affiche yi di jar sponsor yi di ñëw loolu politique la te tey mbër yi dañ leen ci war a encourager pas ñu leen ciy critiquer parce que tey bu ñu demee ba jàkka def ay face à pour mbër yi di wax la. mais tey bu fekkee ne face à face dafa mbër yi waxuñu ñëw ruusante kii après ñoom sénégalais yi seen bopp ñoo toog naan ñaari mbër yi dañoo soof safuñu xorom non nay muy saf foog muy metti affaire de góor yàlla la. foog muy metti foog ñuy waxante nit ku li nga gëm foog nga koy wax sa morom ba keroog yàlla di dogal. mais mais mais tey tey tey tey ci bis bu mag bi damay ñëwaat ci bis bu mag bi nga xam ne moom la Franc war a bëree jàmbaar ëmb ko di première sorteem boo xam te ni ci la war a ñëwee biir jàmbaar war cee bëri en tant que yéen ñi nga xam ne yéenay course bi nan ngeen di def ak nan ngeen koy waaj. waa sérénité rek at yar gu bari wax ji mën naa bëri mais yar gi mën na koo ëpp. na ñëpp ànd ak discipline tey làmb ji dañu dañu dañu jeté benn étiquette boo xam ne wallaahi nekkul sax ci làmb ji mu ngi ci arène politique bi mi ngi ci nawetaan bi mi ngi feneen mais dañ ko jël rek jox ko làmb ji muy violence te nitu làmb yi violent wu ñu mbëri violent wu ñu tey euh, mën nañu wax ne sunu rakk yi nga xam ne ñoo ñëw di supporter seen mbër yi di accompagner mbër yi tey ñooñu laay lancer appel vraiment ñu ñëw bañ a sànni ay mbuus nañu respecté euh, Franc supporteru Franc yi respecté Sokh parce que loolu ñaari mbër yi seen bopp ñooy mayante seen supporters yi dañu war a respecté mbër yi parce que tey ñaari mbër yi bëri dañoo respecté tey tey Sokh warul romb fenn supporteru Franc sonni ko benn mbuus Franc warul romb fenn supporteru Sokh sànni ko benn mbuus loolu mooy yar gu njëkk ñu respecté mbër yi bëre ba pare door a respecté sénégalais yi tey ñun ëmb nañ Franc ci ci ci ci yar ci teggin jàmbaar ku leen xam xam ne ñi fi nekk ñëpp wax dëgg yàlla dañoo dañoo ànd ak dal ànd ak yar sport nag moo ñu ñor heure bu ñu jógee fii di dem Pikine sport moo ñu yóbbu xeex yóbbuwuñu xuloo yóbbuwuñu bëre ñibbi daan wala daanu ñibbi loolu moo ñu yóbbu tey jàmbaar ñun loolu moo ñuy animé discipline. tey fii ku fiy dugg sax discipline rek lañ la laaj laaj ñu fi kenn licence laaj ñu kenn xaalis laaj ñu kenn dara ku am discipline mën nga ànd ak ñun tey discipline boobu la ñuy ànd ak ñëw ci làmb ji di ko sàkku tamit ci sunu sunu naataangoo Sokh tamit mu yedd ay nitam ñu ñëw ay discipline xam nañ moo ko Franc ay sportif de haut niveau lañ bés bi moo leen boole wax ji bëri nag ak affaire mbër la ñun mbër foog ñuy ruubee di jaxase di waxante mais bu loolu weesoo ñun ñëpp joxante cër donc nag na cër boobu nag àgg ba ci làmb ji keroog nag lu yàlla di dogal ñu xam ne loolu la yàlla dogal. léegi moom ci wàllu mobilisation bi rek la ñuy tëjee ak yow wàllu mobilisation bi lan la ñuy xaar Franc biir na nationale. waaw Franc moom ku ko xam-xam ni bu jógee njaago yu jóg bu jógee waa parcelle jóg bu jógee ñëpp jóg kon tey dina ànd ak ay mbokkam ànd ak ay dëkkandoom ànd ak ay naataangoom ba pare ànd ak 100 pour cent parcelle bi ñëw esaat. tey di ñëpp di ko pousse vers la victoire te fra moom wax dëgg yàlla moo ñu gën a bëgg ndam li moo tax tey combat bi ñu sawar ci lool di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla dooleel ko yàlla muccal ko yàlla may ko tawfiix ak taysiir may ko victoire bu mucc ayib may ko waa jàmbaar. jërëjëf grand Balla. merci beaucoup.